la wala nan fayda wari nan ngarmi ñoom ñaar ñëpp ñu ay jàmbaar tey ñu seet nag Coumba Baldé di wéjjur ci Pokola après komba jataay yu bari coow yu bëri ñu seet ko waxtaan ak moom mais ñëwunu pour polémique ñëwunu pour pour détail ñëw pour waxtaan ndax kon ku xam ne ni avant waaj combat dafa metti pendant et après Coumba nuyu naa la. Ah, fay naa la dinaa auzu billaahi mina seytaani wala xawla wala quwwata illaa billaahi ñoo ngi sant yàlla bu baax fay naa la. Pokola de nan la préparé komba bi ndax combat bi euh, dafa jeex coow li bari ñenn ñi kenn ku nekk def sa analyse xam nga li may wax après combat rek kenn dañuy bari kenn ku nekk ak ñi ngay gisee nan la préparé. Ah, di ko ñaanal yàlla yàlla lafal ko cat ni mu doon préparé combat rek la ko préparé ni mu doon waajal ànd ak ay mbokkam noonu rek la ko waaja ànd ay mbokkam. <laughs> toujours ñu gis pokola ci biir géew jom ci xadar ci bañ ki ngar mi mu mel ni loolu xam naa ni ci ay wéjuróom la ko jële kan mooy pokola pokola Balde dafa doon jom man maa yaayam as mbaay di baayam ñaari borom jor ñoo ko jur mu juddu ñettal leen da koo nàmp jom gi ci moom la da koo fekk fii jom ji ci ndayam defe naa Pikine ni muy yaatu yëpp doo dégg Kumba Balde def na lii defal lii Kumba Balde lu ko wax nit xamee rek jël njaayam di jaay sa ci biir këram ci jom googu laa ko nàmpale ba mu judd ci tool nii mu toll waaw. ñu gis jom ji poko laa wane ci biir combat bi combat bi jeex kenn ku nekk sa analyse ñenn ñi dégg nga ko sa xam du ñàkk am na ñuy def ay sorti ne poko laa combat bi ñu ko préparé baaxul entraîné wul yow yaayam nan ngay jàngatee loolu yow bi nga xam ne yaa ko juddul xam ko xam jom ji na ci moom. xam nga nit ki balaa ngaa mën a wax ci moom da nga koy jege boo jegee nit ki di nga xam lu nekk ci moom Pokola ñàkkul jom Pokola combat bi yàlla moo ko ci suturaal liggéeyu ndayam ak barke baayam da cee feebar da koo feebar te moom nit ko nit ko am jom la na tool wax ne dam lii moo ma dal wala laa moo ma dal bu ma ko sama dama koy saagale ko demal nga bëre ji wax loolu daa ànd ak ngoram mais dafa feebar ndax loxom bi ba combat bi desee quinze jours loxo bi gaañu mais ñemewumaa wax loolu moo tax nit balaa ngaa wax ci nit ki rek da ngay fekk nga xam nit ki jege ci nit ki doo nga xam ni ngay wax ci nit ki man loolu laa bëgg. d'accord kon dégg nga polémique yi ci am après entraîné wul affaire yooyu yooyu dégg ko. mais ñooñu ni ñu wax danoo wax lu leen neex rek nit ki boo ko jegewul mënoo wax ci moom dara ndax yow nit ki feebar na xamoo ndax feebar na wala feebarut laa dan koo jur doomu jàmbur la nit balaa ngaa wax ci doomu jàmbur. da ngay xam lan moo tax ngay wax ci doomu jaam Pokola ñàkkul jom Pokola même bu entraîné nawul sax bu bëree yàlla may yàlla defal ko jaam waaw. loolu d'accord ñu gis Pokola euh, tam euh, dafa mel ne wàllu jàppale bi tam des na parce que li ma ne ko Pokola macha allah xale nga waaye am nga dayoo boo xam ne sa ginnaaw te ay mbër yu mag sax ñu ngi fi te yàlla mayu leen loolu ndax bëgg suñu borom a koy def yàlla muy xeetal nit ci bëgg wàllu jàppale bi ci wàllu préparation bi physiquement. moralement mentalement mystiquement est-ce que Pokola wàccaa yooyu itam côté mystique bi préparé wu na ci. de ndayam moo koy jàppale ci mystique ndax man fa may dem man maay ndayam maay baayam maa ngi ko ciy jàppale ak ma ko papaam rak ko papaam bi nekk Pàkk Lambaay waa Pàkk Lambaay yi ñoo xam ne ñoo papaam ñoo bokk nday ak baay ñoo ñoo ngi koy jàppale pokolaa kumba la am maa def lépp maay dem maay dikk maay def lépp. dafa mel dafa wéet ci combat bi kon. non weetu ci sax. liñ naa boo nee rek la am. man la am maa ngi ko ciy jàppal mais suul ker du ko teree fee maa ko jàppale maa ngi ndayam maa koy ñaanal mu dal xam nga bu ñëpp taxawee courage la balaa di ko seetaan yow nday rek yaay jóg moo tax euh, doom daa war a fonk ndayam doom na nga war a fonk sa nday li ñuy def yëpp man maa ne naa def leen lii def leen lii am nañu ko jàppale nag mais dafa dafa lu naa gën a jege gën a yey. mais yàlla baax na daal mhm. waaw. mais njàmbaarte Pokola pourtant su duggee ci géew bi donte am na lu ko metti am na blessure du ko feeñ parce que ak njàmbaar gi muy wane ngarmi gi. Pokola dara du ko metti barke Seydina Mohamed dara du ko metti di moo tax nag dara nege nege wu ko boo foogee ne boo defee nii mu nege newu nege negewu ci làmb wala bu ma defee nii téye sama bopp wala téye sama dama koy xañ làmb da koy gën a yokkal ay paa dara du ko metti bàyyi fa dañ koo yar ci loolu Touba Mbacke gii la yaroo ci daara Touba Mbacke gii papaam daaru Touba gii lañ dëkk papaam ma ngi tëdd daaru salaam gii daara la nekkoon nongo daara la moo tax am na yu bari boo def defee na da koy metti du ko metti waaw. après combat bi waxtaan ngeen ci lim dund ci combat bi ak jafe-jafe yi wala toogal leen boobu léegi. waxtaan nañu nee naa ko àddina nii la lii day tax nga gën a gis ndax yow ba nga bëree dóoree lis mu daan demal nga ñibbi lañ la waroon a wax. am nga ndam mais nag yàlla ni ko nit bëggee daal yàlla baax na lii day tax bu ëllëgee tamit nga gën a xàmmee lii da ciy baax. mais buñ <laughs> buñ ko nee dem nga ñibbi te arbitre joxewul véhicule tam est-ce que duñ ko disqualifié dagg xaalisam te ñoom ñaar ñi di yokkalante arbitre di kii yante seen kii akolaatante ñu mayee ndam loolu ko mu fi doonal sa kii da ngay jóg. waaw parce que ci image yi gis da li na ne moom tam peut-être làmb ji jeex. làmb ji dafa jeex foofu action bi ci biir la commencé. yeggee ca biti ndamam lañ ko waroon a jox waruñ ko woon a wax demal nga bërewaat loolu def nañ ko fii ay mbër ba taay mbër boobu dëkk yoof def nañ ko fii ay mbër action ci biir la commencé jeexe ca biti kon ndamam lañ ko waroon a jox waruñ ko woon a bëraale waaw dañ ko waroon a wax dem taxawal ñu jox bu ñu taxawoon ñoom ñoo ñu mu àndaloon bu ñu taxawoon dëggal seen bopp ñu tax kon jox ko ndamam mu ñibbisi mais dëggaluñu seen bopp pourtant équilibre mag boo ko ëmb yóbbu ko waaw écrit bu mag bu buñ ko ëmbee yóbbu ko te kumba am nday kumba amul nday am ca bi kumba am nday laa kumba amul nday tii kun ko fi defoon koo xamee ne sa doom la wala sa leen da ngay taxaw ñu jox ko ndamam maa la wax lii man Kumba Balde fii nit ñi nit ñi dañuy seetaan nit ñi fu nekk lañ may woowee di ma wax lu tax ñu bëre laal de ko lu tax ñu ne ko demal nga bëre daa amul baayam bu fa taxaw wala dafa amul ndayam bu fa taxaw wala moom daa am man la moom kenn da koo jur dan koo jur doomu nit ku baax la doomu soxna su baax la baayam baax ndeyam baax ay mbokkam baax waat ba moo nekkul woon yoon dañ koo waroon a taxaw bu ñu taxaw loolu xoolal tey lii ku ko defoon écurie Fass waa écurie Fass dama leen a bëgg seen mbër du leen tuutal seen mbër defoon lii Fass yow mii fadal may waxal xam nga li may wax la la ku leen ko defoon seen mbër danay taxaw ñu jox ko witibaaram yëkkate loxoom peut ñoom li ñu doon bañ mooy incité ci du bëriwaat. ñu ci dara. loolu ñëpp a ko gis àddina monde entier moo gis lii ak action bi moom ci biir la commencé jeexe ca biti la commencé jeexe ca biti loolu ñëpp a ko gis ñëpp a ma woo ñi ma woo ci appel xaw ma ñaata la mais yàlla baax na daal waaw. d'accord bi ngeen waxtaanee ci loolu mu wax la loolu mais Pokola pourtant ci biir gee wax naa ko sànq waxaat ko li mu manqué doo ko gis ndax jom ci. li mu li mu li mu manqué la mënoo ko mënut a feeñ parce que saa bu arbitre daggee digg bi mooy dox wutali liis. barke Seydina Mohamed maa ko daan maa ko it toog di ko nàmpal di ko dàmpal eh, ki yëm bi. billaahi mu ne ma damay bëri ji. mais nag mais nag Coumba oh, ku um, parce ko laa fi mu toll ci làmb bu amee blessure est-ce que war naa forcer bëri waale ko. est-ce que bëgg na moom bañ a ñàkk bañ a bëri. mais ak blessure da dab te ndogal lay doon. ah voilà moomatul boppam dafa am lu ne ci ginnaaw comme nii làmb ji nuñ ko jàppee tamit il faut que mu sëbe làmb ji te bëre na. bëre na waaw jeex na waaw. Ah. bi kay mooy après li détails yi bari li ma naan saabu làmb jeexee nag entraîneur yi bari kenn ku nekk sa jàngat ñii ne entraîné wul ñii ne ñu ko préparé baaxul ñii ne même contact bi ñu ci war a def def ko kenn ku nekk sa analyse mais nanu xam ne daal laa ak Liss Ndiago wane nañu jom wane nañu fulla. Pokola daal ñuy wax ñooñu ñëpp ànd ñoo moom. ñi bëggul ndamam ñooy wax loolu mais ñi bëgg ndamam dañ koo félicité tàcc ko ne ko jàmbaar nga fii kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi am ba ko laa kuy dof sa gumba yi làmbatu di dem sa boo leen nee xam ne bëree na te ñoom ñaar ñoo di bëree ñaari doomi gor lañu moo liis yëpp ay gor lañu man du ma saltel kenn ñoom xale yëpp man samay doom lañu liis sama doom la papa sama doom doom la du ci xarab nit du ci wax nit loo xamee bu ëllëgee papa jàmm gën googu la ko bàyyam dëkk ñoo seen kër yee jàkkaarloo nii xamante na ñoom bu baax seex ñang li mu wax xam na ko xam naa leen ñoom ñëpp bu baax ay ñoom gabaar seen mag yow man dama cee jomba wax loo xamee ne kii na daal. seex ñang wax na ci wax ju rafet bi mu jëlee avance bi mu jëlee wax noonu. ba biir jàmm gën googu la màggee papay seex ñang papay Pokola moo ko takkoon ñu nekk foofu ñaari fan ñetti bu ne Pokola mi ngi biir a gën. affaire boobu sax dañ koo wax a wax ba sonn bàyyi suñu waajur yooyu ñuy ñuy ñuy weer sax wax nañ ci ba sonn bëri combat bi sax ñun bëgguñ ban bëgguma sax mu bëree waa jàmm gën ndax jege bi ñu jege woo parce que seen mbokk yi nekk foofu dañuy jaaxle du ñu xam fu ñuy nekk ñoom bukki ñu ngi foofu ay mbokk ba laaj ay waa jàmm gën suuru làmb gi fii la ñu si ci biir kër gi. et puis biir biir jàmm gën am nañu fa faral pokolaa ñu dul jeex. boobu pokolaa ma ne la papa waa jàmm gën sëñ Sidi Alxuraan moom xam na bu baax. waa jàmb ga naax la ñu def am ñoo xam ne fii la ñu ñoom ñoom ñëpp benn bokk lañu ñoom ñëpp samay doom lañu di ñaanal di mendi di ñaanal ñëpp samay doom lañu fii làmb ji nan defaraat woddaat wax yi defar ko xale yi ay doomu jàmbur yu ñu jur la ñun ñoo leen jur duñu ay bandi duñu ay wëyu ba ko laa ñi mu war a àndal lay àndal ñu naan ay bandi ay bandi ba ko laa muy àndal di ñoom la ama di àndal li ngay gis ci bésam moom ngay gis ci bésu ama kon lu tax yow ngeen téye sama doom di ay mbiram sama doom da ngaa dégg ne dégg nañ ko ne wuuf kaa yaa agressé man da bandi damaa defanoon noonu day sàcc di agressé ah yéenoo bàyyi wax ji doomu jàmbur la doon koo jur pour su Sada Gueye moom dégg naa mu wax wax yow xamee ne yoonam nekkul sunu biir famille mu ciy wax bay tudd ay Souleymane Balde yoonam nekk saada gay na toog na jam li mu wax sama doom bëgguma ko du ma moroomam te bëgguma mu jotee Pokola moom amul lu muy analyse ci mbër buy moom bu Pokola feebare même bu Pokola melee yenn melo yi sax moom du du toog ci ay ay télé di ko wax daa war a wax ne ko rak sama ñu gisee ñoom ñaar mais ba ko laa du de nit ñi wax nan ba fenn Souleymane Bal ne wax na ba loolu du mooy jaxta ay nit yooyu wax waru koo wax Saare Gueye nay yam na bàyyi affaire fumiste ak saytaane nay yam ñun ñoo bokk fii suñu biir kër gii affaire lii temps la rek day jeex kon na rafet. d'accord waaw. bu ñu ñëwaatee tuuti ci Pokola Balde nit di nga ko jur waaye doo ko xam. li ko topp ci mbooloo xam naa di nga toog léeg-léeg mu yéem la ci pokola pokola ji waaw loolu yàlla la rek mbir ca yàlla mbir parce que tollul ni mbër yi bi mu juddoo yàggul bi mu lëx li koo yàggul mais tey saa boo génnee Pikine pokola koro bi muy génn fii di dem ca làmb ja da nga yaakaar ni euh, moom ndaw tey mooy génne fii mbaa Ama dem macha allah moo ko liggéey ay supporteram nit ku baax la lu mu am moo ko liggéey ba pare xeebul kenn nit day dox fii nekk koo xamee ne yaram bu borom yaram bu naqari sax nga doxee tànk ne mu jënd daal di jox la am na muus moo xamee ne ñu ngi fii sunu biir kër gi heure bu xëyee day jëndal muus mi kii nun koy wax ateeti six son ma ne ko ay waaye jox muus mi mu lekk baay ma waaye ay waay muus mi gën na maa liggéey ah ak leneen ak leneen yoo xam ne mënoo koo tudd ji jikko yu baax bàyyi fàll la moroomam yi ko topp yëpp ay bàyyi dafa nangu ànd ñoom ci nangu nit nag boo amee mbooloo di nga dégg lépp lu mu dégg rek moom na muñ yàlla baax na daal waaw. yàlla baax na nit bu amee mbooloo na dina dégg lépp li ma ciy toftal rek mooy Pokola Balde ndaanaan nga champion nga borom jom ko benn bi mbër war a njëkk am yàlla dénk na la ko mooy jom ak fit ak bañket Pokola lu mu metti metti doo gis Pokola wane ak ak ak ñàkk jom te loolu ne ci Pokola moo ne ci liis muy ñaari xale yu doon wut. tey làmb de leen a soxla. yéen tey ngeen war a dem ba am ci ñiy fayeeku cent million ëpp ñu leen dayoo de. ëpp ñu leen sañ ëpp ñu leen fit dàq ñu leen a bëre man naa koy wax. parce que àdduna cër la rek waaye xam leen ne lu nit di fayeeku ci lu baax di ngeen ko am ndax ay jàmbaar ngeen ay góor ngeen ay nit ñu baax ngeen te mën ngeen am lu ne ci làmb muy Pokola muy liis Pokola lii du dara sakare lii lii du dara sakare lii ñëway dàq mais nag nenu gën a xam ni rek làmb ak coow ànd te saa bu jëmaat jàlle na kët yu bari kenn ku nekk ni muy analyser ko xam ne sax maa ngi moom yam nekk entraîneur di analyser naan nii ak nii ak nii ak nii entraîné wul bëreewul sérieux nga dégg lu ne nga. ku bëreewul ku wul dina bëre dina bëre temps bu toll. temps bu toll dafa feebar sax na arrêté di dem sax na bàyyi seytaane di dem ci alburaane tëgg leen combat combat Sokop Balde ak ak Sarko yooyu lan moo ko ko war a jaral lan moo war a jaral Saada lool moom Saada daa war a xam ne ku Balde. lu nit bu nit doxee tuuti wax ci man balaa maa tëdd dégg ko moom du mooy taxawal ay combat naan ay Sokop Balde nan ko jox euh, kii mu dem bëree jeex moom nan ko jox kii kii yooyu baaxul kii jàmbur doo ko tas kër jàmbur doo ko tas loolu baaxul yow mun na lijjanti boppam ñu waree bëree bu ko laa waree bëree Sarko day bëreex moom Sarko bu waree bëreeg Sokop dina bëreex moom ñoom ñaar ñoo bokk ndeyex baay nan ca tey na rafet. keroog ba ba ba ba ba Pakola di signé ñoom ñoo ko dee ne ko laajal Sarko mu laaj Sarko comme ñoom la ñu mën a jóge waatee ci suuf di def seytaane naan lan dem jox Sokop Sarko Sokop ak Pakola ñoo bokk ndey ak baay nan bàyyi fumiste gi ni nekke kii làmb ji mbaxalu kaani la ku ci war a capp di nga ci ku ci war a capp di nga ci jag nan bàyyi ñu ni ñuy def képp lu ci waay wax maa ngi lay dégg waaye dama lay tontu man Kumba Baldé yàlla mi may jaamu laa ragal nu mindeef mi may gis nga di ko gis Pokola bu waree bëree so sar ko day wareex moom ba mu neex Soko Baldé bu waree bëree sar ko day bëreex moom ba mu neex nan ca génn te rafet ci. Pokola ak Jacob sax ñoo bokk ndey ñoo bokk. papay Soko la tuddee Pokola. bari woon tey bari woon jom lool Pokola koo koy garmi gi ci biir kër gi gaynde kër gi moom nga laal ko. koo koy garmi ga borom waaye koo koy garmi garalal. yàlla yërëm baaj kër sëriñ moo mu tuddee taawam mu tuddee ko sama caat. sa relation moom kon pokola ñaari ñaari mbëggeel moo daje ci moom ci yow. barke Seydina mu xam ne. gi nga ko jur ak ki nga ko tuddee. ak sama bi ma ko tuddee tax ma gën koo bëgg sama joojoo tax ma bëgg ko ci ma mag ju ma seetaanul nag benn yoon da nga koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na sedd ci moom ku nit ku baax ma ne la billaay wallaay. voilà nanu bàyyi biir kër gi amuñu lu ñuy xaaj ci kër gi amuñu détail coalition ànd xeex kii coalition ànd dem kii loolu baaxul Falaye Balde moo leen jur ñoom ñëpp coalition bu xejee ci biir kër gi xanaa dañuy toj kër gi Arboura dafa sànni xaalisam sànni wu ko de kon moom nan bàyyi Pokola may ko mu toog maintien Kumba Balde mooy yaayam te bañu ci moom nag ban Pokola la ñuy gisaat prochain combat ndax xam naa ne euh, am na lu bëri loo dëxëñ sa diggante ak Pokola. maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér ak wér la rek loolu rek laay ñaan ci moom mais Pokola mu dara mettiwul yow xam nga sax doonu laaj koy Pokola barke Seydina Muhammad ma ci nuyaawaale nag seen waa kër nuyuwaale ay bàjjanam yi ñëw ci kombaa bi yëpp ak magam yi ñëw ci combat Ousmane usmaan usmaan mbaay maam Mor mbokkam yi ñëw ci làmb jëm ñoom bu keex ñëpp. ñëw nañu jàppale nañ ko dooleel nañ ko xeexle nañ ko maa ngi leen di ñaanal yàlla seen jàmm yàlla na yàgg ak sëñ Modou Thioune ñoom ñëpp waa kees yi magam yi nekk kees Bada Mbaay Xaadim Mbaay ñoom ñëpp ay magam lañu weetul de te papa boo ko xoolee xam ne weetul ay mag yu baax may ñaan may nuy waale Bada Bada Jaaba États-Unis ñoom ñëpp ay magam nañu danoo def ñoom ñëpp seen doole jàpp ci ñu nuyu tamit Seex Mbaay ñoom ñëpp ay magam nañu papa weetul parce que mu Muhammad weetul nuyu waa Pàcc Lambaay bii na maa ngi leen di gërëm di leen sant ñooñu ñooñu nag ñu baax lañu xam na nu seen kóllëre moom ñoom ak As Mbaye sëñ ji bi sëñ bi maa ngi koy nuyu ñoom ñëpp ñoom ñëpp daal ak ma moor seen ñoom ñëpp daal papa daal gisuma ko ko jàppale waa bawal babal daal danoo gore danoo bëgg seen dara bawal bawal la bëgg seen dara man ñoom rek laay topp ñu baax lañu billaahi ñoom rek laay topp léegi léegi la fi génn mbaam bi ma nga añ <laughs> pako mbaam mais lu indi pako mbaam bi. xale yi nee na yëfu mbaam rek lay def <laughs> dañ lay doon ngay ñëw kay loolu yëfu mbaam. nag loolu tam war nañ cee waxtaan parce que il fallait que tam mu mu mu jël un maître boxeur tam bu koy gën a teg ci yoon parce que tam pako laa mënul saa su bëree naaj tam loolu baaxul. léegi magam bi nekk magam bu góor bi nekk Espagne yaayaa jàmme nee na ma far ko kayitam yi mu ñëw fekk si ko. ma koy nuyu waale moom bañul ku ko barke Seydina Mohamed ay cinq personnes yoo xamee ñu ko bëgg a jàppale lañu mu génn dina génn bu soobee def benn six mois sax préparé waat dikkaat waaw ñu xam ne Paco am na cër ci làmb billaahi dina dem yàlla baax na am na ay mbokkam ñu ko mën a jàppale bu baax papaam nag ku liggéey la papaam ba maa takkee ba ni mu gaañoo musul añ ci sama kër te àndul a fukki nit naa moo xam Mohamed li may wax ni waa bawal bawal yi ko ko mus añ dimanche jot mu ñëw ne tey fii laay añee te àndul ak fukki nit siisul dafa liggéeyal ay doomam nee naa ay doomam boo leen góorgóorloo seen papa dafa ànd ay doomu aadama may leen doole liggéeyal ak ñoom may leen doole liggéeyal ak ñoom waaw. Ah, ñu gis tam diggante Eumeu Sène ak Boy Niang koom ba comme ñoom ñu nu jàppalee tam Pokola ñun tafoo ci Pokola di ko soutenir et di ko doole aussi. Pokola ku ko jàppalee da ngaa fay bor bi. ndax papaam as mbaay mii mbëru pikin yi mu ne ñemee wax baa pikin mbooloo pikin mbooloo la daan toog ku entraîné na pare mu yëkkati sareet jox la ku entraîné na pare mu yëkkati sareet jox la dafa sonn ci xale yu mbër yi te dina ñoom dinañ ko wax. kon donc la chance bi mu am mooy waajuram moo ko liggéeyaloon. waajuram moo ko liggéeyaloon moo tax ñoom am seen àndeex moom noonu. doon gis lu monsieur mësta def boo ko Pokola bis ëppal presse ñu ñam ñaar mu boot ko Pokola jël ay risque ne bu dee benn ndam la Eumeu Yàlla na nga ko man ma ñàkk. ci Eumeu Sène ko Eumeu dafa rafet xol nit ko baax la seetaanul papa papa moom ñoom seetaanun ko moo booy ñaa ñii dama leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak biir ñëpp a koy jàppale ak ñoom soq ñi nee naa la papa ma ko liggéey man dama daan toog ba guddi di toog ay ñànk tang di ko joxe. bu nu jógee entraînement mère Kumba ak ñoom Tidiane Diop mii tey jii Tidiane Diop laa bëggoon nga jël ko mu wax la rakku Njaga Diop barke yenn dama jël ko moo lay wax yépp nu mu demee papaam da koo liggéeyal ay ñoom déggool ñii ñii ñii papaam gor la de heure mu liggéey da koy jox ay moromam ku nekk fii as mbaay samedi bu jotaan ñeent nag lay rey pàkk mbaay su ko reyee ba pare jaay woo xaritam yi ñoom Paala Diop Mansour Diop Dégool ñoom bëri ñoom ñëpp saa waraañ ñoom Mbacke ba baaba Diallo ku nekk mu la la kaa jël si sa ndawal ku gore ma ne la billaahi wallaahi ku gore. kon laa ko yabul ne ko ne ko jàkk bañ ko piis. barke Seydina am ku ko piis da nga koo yàq ku ko piis billaahi da nga koo yàq noonu la defanteex ñoom lii ma lay wax ni ñoom Tafa Gueye mbër ñii ñëpp fii Père Diaw Père Diaw ma nekk euh, Géejawaay laajal Diaw. laajal jaw kuy asmaay. waaw parce que jaw lu mu wax tudd ba asmaay. ma ne la asmaay lu mu am bokkee na ko doomu aadama keroog ba mu ba mu gaañoo fii dajam bi ay nit a ko dëj wàcce fa nag boo xamee ne ñëpp koy seetaan. prochain adversaire bu Pokola kan lay doon ndax ñi bëgg Pokola bari nan ku ko yàlla booleel rek bi jaru ko man xëccoo ma Pokola xëccoowul ku ko yàlla rek na bëreex moom fii àdduna la te yàlla mooy leera lépp daal. te yàlla na sunu borom bi leeral lépp waaw bu ma ko jox kenn na bàyyi lépp ci loxo sunu borom yàlla baax na. seen jóge ci ndam daan Sa Thiès nan nga jàngatee bile combat am parce que ta dem na ba kenn bu dee benn ndam naa la ko joxee Eumeu Sène. moo tax ñoom ñëpp yàlla may na leen ndam te ma seen dafa baax jiital xale yi di jël xaasam di ko def ci xale yi kooku foog mu am ndam man ku ma balde mii tout dafa may may heure bu gaaree fii otom yëkkati jox ma di jàppale sama doom ak dégool ñooñu fàttewu ne Paala Diop Paala Diop bu Pokola di di bëri sax du bëgg a reporter ak ñoom euh, kii nii Ibou Ndiaye ñoxo baay ñii ba daa am ay ay ay baay ci làmb yi ne muut yoo xam ne heure bu amee combat dañ may woo kumba sunu doom tey lay bëre man na leen ñaanal leen ko ñaanal leen ko am na ay baay ñii ay nijaayam la ñii ay baayam lañu yàlla baax na na rafet daal bu ñaawee tamit ñoo xam de yàlla daal baax na man daal lépp ci loxo sunu borom laa ko bàyyi lu mu war a am rek yàlla dina ko def mu am ko. laay lan ngay sa doom ndax yaa boole ñëpp. liis moom maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan gu ànd ak wér ni Pokola bëggalee yaayam taraanga moom it yàlla na ko yàlla may taraanga goog mu defal ko yaayam ñun ñëpp ñoo bokk ñoo bokk suñu Guinée Bissau ñoo bokk suñu jàmm gan boobu mënuñoo xasante xale yi dañ doon teko ne rek di waxante man jéggal naa cépp ku ci wax Coumba Baldé dara billaahi jéggal naa la sax sama yaram day daw gis xale bu baax bu am jom la fii mbër mu fi takk ngemb rek am nga jom ndax ku si nekk yaa wut loo teral sa ndey te yàlla na suñu borom bi jàppale jàppale mboolum julli maa ngi koy ñaanal di di jéggalu Laurent moom ñu gaañ ko fa tamit maa ngi ñaan yàlla mu jéggal ñu jéggal leen ñoom ñëpp yàlla may ko wér moom tamit ñoo ñëpp samay doom lañu Mm-hmm. et puis sañoo euh, say doom lan yaa jaboote ñëpp ndax cër bi Pokola am jàmm moom la moom la moom la amaat fii tey kon lu ñaaw xaju fii nan ko rafetal te xam ne benn famille benn famille la lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo daal di ñaanal ñëpp ndax xam nga ne Pokola ba mu amee làmbam ji weer xale yaa ngi toog fii fees ci koñ bi dell ñoo koy jox lekk ñoo koy def naan di nuyu xaritam yi nag bàyyi faalam yi di nuyu ñëpp di jéggalu sunu waa koñ bii nag. nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg maa ngi leen di jéggalu ñoom ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp waaw di ñaanal na papaam jee pamba yàlla yàggal ko fi ndax gis naa nag ne mu taxawoo sama doom bi di ñaanal ay bàjjanam ba ay bàjjanam lekkatu nu naanatu lamb ji minit bu nekk ñu woote kumba ma nii ak nii di ñaanal sama mag yi jigéen yi di ñaanal sama rak koy jigéen yi nekk ci ko biir kër gi di ñaanal sama yaay daba njaay yàlla bàyyi ko fi may ko wér ak wér di ñaanal sama papa fa mu tëdd yàlla xaare ko àjjana yàlla na yàlla set di jëri bërëm ñoom paate bal ñoom papa ñoom mm, ama balde di Demba Balde di ñaanal ñëpp di ñaanal ama làmbam ji muy jëm tamit yàlla suturaal ko ci may ko ci ndam maa ngi ñaanal ñëpp sama doom ji daal maa ngi ñaanal ñëpp yàlla sànguñu ñu sutura dàqal ñu saytaane ñu làmb sunu làmb waa ñu bàyyi ko nan bàyyi nan ko bàyyi mu nekk ak waa kër gi làmb ay làmb leneen loo wax ci doomu am nag saada nag mere naa ko trop sama doom di wëyu du bandi ba mu naan kumba lii lay àndal ah paxalaa lii lay àndal pa ah, saada na lijjanti boppam bàyyi sama doom bii mooy ñaareelu yoon bu ko defetee lan la laa koy saada xam na ma bu baax buy dellu mbaa muy wut bës mbaa muy wut ko ko topp di ci pakolaa la koy wute na bàyyi kër jàmbur boo fa duggee boo fa mënta wax lu baax noppil saada rek nekkul biir pikin gii te moom rek moom moo ci wax baat bu ñaaw bii saada na bàyyi sama doom waaw. d'accord jërëjëf mooy waxtaan wi ñu seqoon ak Coumba Baldé li ma ci rek mooy Pokola Baldé ak Liss Ndiago bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk ndey gis nga ko noonu euh, li may wax rek Pokola ak Liss ñooy mayante xaalis yàlla yàlla defal leen jàmm defal leen sutura bu mënoon am nag Pokola ñaari baat ci moom xaw ma nu may def ba am ba am ko ñaari baat rek moo ko mayoon loolu moom. ana